te koy ñaanal mboolem xaalif yi ci biir réew mi yëpp képp koo xam ne nag yaa ngi bàyyi euh, lémi xel l'émission des émissions ñu ngi lay nuyu ah, na nag waa diaspora bi nga xamante ne nii saay su nekk rek ñooy bàyyi xel li ñuy def ñu fas yéene di ci ànd ak nag yi saa njoogu Meng ma bàyyi ko mu nuyoog euh, internet yi suivre l'émission des émissions alaaji maa ngi lay nuyu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 ne ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq mhm. nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm. di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu biir réew bitim réew ñëpp di am ci ñoom mbégte kontaante macha allah léegi ngay am. ayca jërëjëf Mbengue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi nuyu nag Baye Assane Mesere mi nga xam ne saay su nekk rek mi ngi ñuy teg pression ne ñu l'émission des démission jug na jot na ak ca jóg leen euh, tey nag euh, daañu waxtaanee moo Modou Diouf Serigne Saliou Guèye ak euh, Maître El Hadj Diouf nga xam ne saay suñu dajee rek coow dana dox ci seen diggante keroog ci aljuma ji nag ndumbelaan wax nañ fa wax yoo xamante ne ni kenn du comprendre Serigne Saliou xamal ne ko sa kër gi kenn taalu ko woon yow yaa def ay simulation buñ ca noppee ànd ak Abdou Bara Dolly Mbacké moom yi nga xam ne nag nee na président de la du Sénégal muy Macky Sall moom euh, buggul kii di Jomaay bokk Ousmane Sonko bokk sax moom moo ko ko gënal ndaxte Jomaay sukk dong la te Ousmane Sonko moo gën a am expérience politique euh, que Jomaay fay Bouba Ndour moom itam doon na jotee euh, ci jàkkaarloo ak euh, Ngone Diop mi nga xamante ne ni moo nekk taxawu Sénégal bu xalifa Ababacar Sall euh, ngir rek daal di koy accuser ne ko yow yaa wax xalifa Sall dafa trahir le peuple sénégalais Bouba Ndour weddi kàddu yi ñoom la ñu fas yéene waxtaane tey ci émission des émissions ñu fas yéene ko dooree ak Serigne Saliou Gueye maître El Hadj Diouf coow la amal fële ca Ndoumbelane ñu xool yi di mel dellu si ci plateau bi. kuy taal bañ a rele sa affaire la. dama ne waaw d'accord yow yow soo neexee mën nga wax loolu. bu dem taal kër jàpp sa affaire la bu sa waa kër doo wax loolu. kuy toj magasin sa waa kër bokkoon. ma ne sama kër yow taal sama kër. waaw yow taal sama kër dama kenn taalul sa kër. tu as fait une simulation kenn ci li nga wax même mu continuer donc yàlla suñu borom bi àtte ci li nga wax. xam nga dëgg rek mooy mujj. dëgg boobu waxoo dëgg de. dama ne dëgg rek mooy mujj. kàcc lan nga def de sa passé. kàcc nga kàcc bu rëy se rencontre. barke alxuraan da dëgg da ngay kàcc. gis image kër. nga damay simulé dama ne may ma d' accord dañ taal sa kër ok je m'en fous. ah d' accord mais dañ taal sa kër ah, dañ taal sa kër. damay toog mel ni ku dof ah, dañ taal sama kër. les preuves sont là. ah dañ ko taal. dañ ah, ko daal ba bàyyi ko ne waaw dañ taal sa kër donc. mais yëpp iñaan yee wax la. waaw d' accord iñaan nga iñaan ñetti ba gaa iñaan. d' accord dañu taal sa kër. El dañu taal mais société dama naan dañu ko taal. yow da nga bon. waaw d' accord merci. kañ ngay changé ngay baax. waaw léegi ba léegi ba bàyyi ma. iñaan ñetti da nga bon nga donc j'ai que. ñi nga xamante ne ñooy dugal président bi ci njombe yii gis nga bés bu ci dara amee. Mhm. ñoom ñëpp dañuy roccee ko bàyyi ko. Ah ayca mi ngi noonu jërëjëf Modou Diouf man nag damaa xamul ñoom ñaar saay suñu dajee rek wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar say neer day jóg lool ba coow li bari lool allah ji dégg nga ko Serigne Saliou sax li mu mujjee mooy que ni président Macky Sall bu tollee fii eh, ci ay jafe-jafe ñi ko doon wéttali ñëpp dañuy daw bàyyi ko ko bàyyi ko eh, li jëm nag ci taalu kërub eh, maître El élage Diouf bi nee na ko nag da nga def ay similation mais kenn taalul sa kër mu xamal ko ni ko procureur ñëw na li nga xamante ne noonu la gone yi defoon biir këram. waaw macha allah <clears throat> xam nga njàngat gi moom euh, dafa nekk loo xamante ni euh, lu doy la parce que maître El Diouf nee na taal nañ këram euh, sëriñ Saliou ne ko kenn taalul sa kër mais est-ce que ñoom ñoo bokk fu ñuy waxee xam nga pareen saay mën nañu bañ a bokk fu ñuy waxee quoi xam nga. sëriñ Saliou mën na waxee fu gën a xóot fu maître El Hadj Diouf déggee parce que sëriñ Saliou euh, mën na jàpp ni kër gi du këru maître El Hadj Diouf. ah mais bu nekkul këru maître kër kan lay nekk ah, loolu xam nga yooyu yeneen mbir la xam nga euh, sëriñ Saliou fi mu waxee. Mhm. xam nga d'abord gis nañ kër ñu ne kër maître El Hadj taal nañ ko. mais sëriñ Saliou bu ko waxee ne ko takkee taalu sa kër. peut-être que ni am na loo xamante ne bi mën na am waxu ko. moom lu mu xam te sénégalais waaw mën na am loo xamante ne bi xam na ko te sénégalais yi kii ko léegi bi mu bañee xuus gis nga ko moo tax mu ne ko waa ah, d'accord ok. <laughs> mais ci biir wax ji. maître euh, kii na quoi boo gisee coup bi dal na quoi coup saa sëñ dal na mais man jàpp naa ni sax dal bi. mënoon na gën a daal bu maître comprendre woon peut-être fi sëñ Saliou waxee comprendre nga parce que même am na ñoo xamante ni bii sax bi maître bi di wax dañoo taal sama kër am na ñoo xamante ni bi doon nañ ko ci jamono yooyu am ñoo xam ne dañ ko wax na ko euh, du sa kër <laughs> comprendre xam yooyu nag yooyu nag euh, yeneen la yoo xamante ni day am ci wàllu politique léegi nag euh, li nga xamante ni bii mooy maître El Hadj Diouf euh, li sëñ Saliou wax xam nga tey président Macky Sall dafa am fu mu nekk foo xam ne du moo fa dugal boppam mais ay nit ñoo ko fa dugal parce que pareen saa yi nit da ngay toll foo xam ni dangay bëgg a dégg lu la neex mais doo dëgg wutatoo dëgg waratoo dëgg maanaam pareen saa yi sax ñenn ñi nga. sori leen sa bopp c'est parce que li liñ lay wax arrangé wu la bokkut ak liggéey maanaam nit ñi dañ lay jox li nga xam ni moom nga bëgg a dégg loolu nag du caagi ni rek ñi lay ñëw di la ko wax mais yow it am nga ci sa responsabilité parce que nit war sa doxee noonu parce que tey fu mu dugg fu ne d'accord ay nit mën nañ ko dugal mais am na responsabilité ci li mun yëf yi waaw parce que mbir mi mooy lu neex amul quoi boo jàppee ni àddina boo seetee yow tey sa dund di nga toog tey mais ci li nga nekk nii xamu ko quoi parce que du lu neex ci yow mm-hmm. et pourtant nit a ngi toog gis li nga nekk mais moom mu am envie mel nekk fi nga ne te yow yëgoo ko yow li nga romb walla li nga yeggagul rek moom ngay jàpp ni lu neex la prensa yi nag nit ñi noonu la ñuy bëgg a déggee ñu di leen wax loo xam ni lu la neex la prensa yi sax bu la nit di wax dëgg sax ñu ne kii dañuy soofantal kooku ci sa kanam ba am na ñu bari ñoo xam ne da mujj di tàqalikook ñoom mais loolu yow tamit am nga ci part de responsabilité quoi mm-hmm. tey jii fi président Macky Sall yi yegg si nii jege ñaaleem yi d'accord yóbbu nañ ko ko fa mais moom it ci kaw mu topp neex-neex bi nga xam ne bii moom lañ ko ciy waxal ba mujj gi mu daa dee dugg ci kàmb gi nga xamante ni moom la dugg te dugg mu dugg ci moom kese parce que looloo tax njiit garaaw dafa ñu cee dugal ñun ñi nga xamante ne bi peut-être yàgg nañu alerter yàgg nañu wax ni yëf yi du nii est-ce que duñ def nii est-ce que duñ def nii ñun ñooñu ñëpp tey ma xal ñooñu ci kàmb googu d'habitude dañuy wax ne même bu ëllëgee bu ñuy nettali sax ñi ko ci dugal duñ leen ci boole. mais responsable bi moom rek lañuy ñuy. moom la ñuy joxoñ parce que moom mooy kii bi tey jii bu fekkente ni bi tamit daf ci génn nag tête haute bu boobaa tamit dañuy wax ne grandeur am la et cetera maanaam mérite boobu moo koy kii mais leneen lu ci amit moom mooy ki nga xamante ni ki moom moo koy loolu. xam nga maître El Hadj Diouf ay Serigne Sall bu ñu nekkee ci plateau. bon man jàpp naa ni sëñ saa saay pareen saay day fekk maître ci terrain parce que maître terrain terrain bu ci nekkee terrain la maanaam créer bruit pour génn ci débat bi parce que bu fekkante ne bi dañu teg yëf yi ci xel ak yooyu sëñ Saliou journaliste la boo xamante ne bi am na vécu am na jaar-jaar xam na lu bari ci réew mi comprendre nga moo tax comme que da nga expliquer ne bon la plupart nii lay demee donc moom mooy ki ci perdre mais maître à du ci perdre parce que maître à moom buy ñëw rek jàpp nañ ni nii lay doxalee moom nag man bu ma doon moom moom maay changer stratégie bu ma provoqué du ma ko wuy ci provocation du ma ko ci tontu. ah même mu mën a tooñ mais yow yaay changer stratégie quoi il faut fois nga changer stratégie changer rek li nga xamante ni bi noonu la yëf yi di doxee pour que yow sa communication mën a jàpp parce que lépp lu mu teg mën nga ko dindi parce que am nga ay argument yu ko dindi. mais bu fekkee da nga ko bëgg a dindi mu indil la terrain xuloog affaire yooyu rek nga topp ko ci rythme boobu maanaam loolu mooy nañ coow dëgg réer. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne bi mooy stratégie bi Maître El di demee ci plateau. boo seetee plateau yi muy dem yëpp dana fexe ba bu ñu fa jógee nit ñi ne plateau coow la comédie la kii la laa bu boobaa moom mooy sortir vainqueur quoi. parce que yow day mel ni yow am nga ay penalty yu bari yoo xam ne rate nga ko. moom nag fi ko nit ñi doon séentu foofu la quoi paren ça il faut changer règle de jeu yi soppar ñi yëf yi tiirewaat carte yi bu bëggee doxaleen na le bon nga stand by parce que defe naa ne fu coow am ñaar la déglu ko ba mu wax ba pare nga soog a sa débat yooyu mooy yi nga xamante ne bi mooy li am solo waaw loolu la Olof Njaay paren ça il faut éviter nit ki ci terrain quoi parce que mm-hmm. terrain moom mm-hmm. loolu la mm-hmm. moom am na ay kiwam tey nit ñi xamee nañ ko ko waaw xam nañ ni day ci kaw mu yàq débat bi ci lay nekk moom koo xamante ni ki dañuy wax ne moom mooy kii wu débat bi quoi. d'accord waaw hmm. donc yow foofu du sa kii. Hmm. bul dugg ak moom ci terrain bi bul dugg ak moom foofu waaw loolu la hmm. Olof Ndiaye di wax de xuloo ñaar a koy def. voilà Abdou Bara Dolly moom mi nga xam ne nag ci weekend bi moom wax dëgg yàlla saf na sàpp ci réseaux sociaux yi yëkkati ay kàddu nee na moom ci jëmmi boppam sax Bassirou Diomaye fay doy ko comme président ak la mu wax ne président de la République du Sénégal àndul ci candidature Diomaye Faye bi ay waxam la nag nañu dem déglu ko te dellusi Macky Sall Ousmane Sonko bokk moo ko gënal Diomaye Faye bokk ba ci man mii di wax ak yow Ousmane Sonko bokk moo ma gënal Diomaye Faye bokk Ousmane Sonko moo ëpp expérience moo gën a xam réew mi te kee ab surga Ousmane Sonko la woon man du ma gis njaadëgg di fal surga loolu moo waral Sénégal waruñoo jël réew mi Macky Sall wala kum àndal di ko gën a yées jox ko gën a yées Macky Sall loolu bu Sénégal toppee seen bopp ci mer bu ñu ko defee dañuy rëcc dañuy dañuy dañuy mere seen bopp dañuy rëcc ëllëg moo tax il faut que ñu waxtaan waxtaan woowu noonu bi mu président de la république constaté wax naa ko ni ko ñaara am ñu libéré détenu politique yi détenu ñi tuddee ay détenu politique mais détenu politique amul ci réew mi manifestation politique ak def loo xamante ni tey jii jëru jàpp ñu jàpp leen loolu moo am ci réew mi bu fekkente ni tey Macky Sall accepté na ci proposition yi nga xamante ni am na ay kilifa yu ko def ak ay bonne volonté yoo xam ñi ngi dox tànku jàmm ban tàmbali libéré démb ay nit yuñ bàyyi ak ñun war a bàyyi tey ak ñun war a bàyyi suba ak semaine bii ñu war a bàyyi Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye loolu négociation moo ko man mais xeex mënu ko xeex mënu ko bu xeex doon am kenn du génn si kase parce que xeex nañ ba sonn te population àgg nañ foo xam ku leen woote si xeex du mu xeexal moo tax bu ma déggee yenn chroniqueur yu dof yi di woote naan ku sa bàyyi tere xeex na nga bañ ku sa yaay tere xeex na bañ ku sa sëriñ tere xeex na bañ ma ne kooku daa dugg ci réew mi wala daa am lu ko jot da nga bëgg siiw baaxul yàlla nañu yàlla mosul si bëgg eh, siiw te te siiwoo siiwuñu te am nañu bari ñoo xam bëgguñu Ousmane Sonko génn si kaso bi parce que bu Ousmane Sonko génn si kaso bi am ay chroniqueurs yu ñuy wax luñ waxati am nañu bari ñoo xam Ousmane Sonko bëgguñu génn si kaso bi parce que bu génnee si kaso bi réew surtout Ousmane Sonko am na ñu bari ñoo xam Ousmane Sonko bëggul ñu génn ci kaso parce que bu génnee ci kaso bi Ousmane Sonko mooy dirse mooy ne ci kanam kenn diitu leen gisati tant que Ousmane Sonko ngi nekk. ay ayca mi ngi noonu ay kàddu baada li Mbàkke la xaritu Sa Ndiogou euh, alaaji dégg nga li baara wax moom nag su ma ko déggee dafa mel nii ci ñuy def médiation ak euh, li président Macky Sall def euh, joto defagum muy libéré yenn détenus yi moom ci waxtaan boobu kenn mënu ko ci génne nee na nag Bassirou Diomaye fay président Sall du nangu mukk ñu fiy teg koo xamante ne ni moom moo ko gën a yées ku ko gën a yees. waaw ay la waxuma ko nag moom moo ko. waaw pour démarrer euh, Serigne Bara euh, li lii xew yëgu ci dara wóor na yàlla xamu ci dara xamut nu yëf yi demee. Ah, li waaw li mu wax kañ man man dama laa wax man li nga xam ne mooy li am yëgu ci dara. Hmm. dara la ci xamut nit ñi di génn. yëgut nu nit ñi demee nu yëf yi demee yëgu ci dara lu li mu dégg ci rajo yeeg li muy dégg-dégg ci télé. nee na moo ko président de la na yàlla yëgu ci dara. aywa ko gën a ñaat nag yëgu ci dara dara dara. fa ñuy dégg fa ñuy waxee. jegewu fa. Mm. li muy seetaan ci tele bi rek lay seetaan daw def li nga xamante ni bii moom mooy point de presse am. journaliste yi ñëw toog mu hmm. naan leen maa lekk na rek maa rek yëgut ci yëf yi dara dara dara la ci yëgut c'est que man mënumaa embarqué ci bato yooyu quoi hmm. xam sëñ Baara dóor yi nandite la sa waay la sama waay la moo tax ma lay wax dama ko xam sama waay la moo tax ba xam ko <laughs> sama gaay la <laughs> moo tax ma xam ko maanaam hmm. dafa fexe ba créer benn personnage boo xam ni maanaam ci boppam rek la am moom moom moom moo ko créé moom moo créé benn personnalité boo xamante ni bii tey. nekku fa. Hmm. yaa ngi dégg. nekkul ci li mu lay wax maanaam nekku fa mais nag dafa fexe tey jii ba am sañ-sañu taxaw wax hmm. ne bërki dem ba wax na ak président tout en sachant président du ko weddi. yaa ngi dégg. Eh, no xam na ni président du ko weddi. du taxaw ne sëñ Baara doon waxuma ak moom. te ñi koy wax du ñu dem laaji président. Hmm. ne ndax da ngay gisante ak sëñ Baara. Hmm. mais moom am na fitu taxaw ne. man ak président bi ñu waxtaanee waxtaan wax naa ko lii ci affaire yëpp fan yi sax di ngeen gis lii am lii am mooy li mu dégg ci rajo bi après moom lay nettali ne moom la. waaw fàtte di sa waay la. waaw hmm. léegi nag. loolu mu def nag sénégalais yi nag dañu jot ñu xam ni lii sëñ Bara Dolly di wax nii yëpp boo laajoon président Macky Sall kañ nga gëj a gis sëñ baara dool Dolly mu ne la yàgg na boo ne la gëj na gëj ñaa koo gis bu yàgga yàgga yàgg la lay wax mais doo am accès ci président Macky Sall wala boo demee ba toog ak président Macky Sall tamit du loolu nga koy laaj sëñ Abdou Bara Dolly nag loolu mu créé doon nag moo tax mu mën a nekk c'est que nandité la. mais jàpp nga ne li mu wax nii amul. li mu wax nii. noo am na ci boppam moom moom xelam. mais yow mi yow mi mu koy wax tamit boo gëmee ni boo ko gëmee. am na ci yow mais Macky Sall moom xam na ni toogut ak xam na ni xoolal mbir yi waxu ko ci laaju ko ci dara moom it waxu ko ci dara moom xam na loolu. Hmm. comprendre nga donc Macky président Macky Sall moom du génn naan mi ngi tontu sëñ Abdou Bara Dolly. Ah, mais mais moom nee jëmmam moom. waaw bëggul Ousmane Sonko nekk candidat moo ko gënal Diomaye nekk candidat ndax Diomaye surga rek la. waaw xam nga loolu moo tax ñoom ni ñuy àndee ay nit loolu day doon jafe-jafe loolu mooy li wuute loolu la leen Ousmane Sonko defal cours bu extraordinaire ñu war ko respecté ñu war a respecté njàngale moom ànd ay nawle ñooy ànd ay gor ñooy ànd du dañ ma jiital maa gën ñi may àndal. loolu la Ousmane Sonko wane dafa wane ni man ak ñi may àndal dañ maa jiital waaye gënuma leen loolu la waa Pastef comprendre dañoo comprendre ne Ousmane Sonko lañ jiital waaye du moom moo fi ëpp xam-xam du moom dong mën a jàllale projet bi ay nit ñi ngi fi ñoo xamante ni bi am nañ ngor gi mu am am nañ mat gi mu am budut kii rek di kële yeneen parti yi nag ñi leen jiite dañoo ne waa parti bi maa leen gën ay suqu ngeen noonu la parti politique yi doon doxee moo tax wane nañ ko si ay façon yu bari dem nañ ba nga xamante ni parti ba mënut a am plan B c'est parce que ki jiitu dafa jàpp ni moo gën ñii bu dul moom du doon keneen ci parti bi dem soutenir keneen sax moo leen gënal ñoom ci seen parti ñu fay jël kenn parce que jàppee nañ waa parti bi suq du dëkk te loolu diggante yëf yi ni mu demee nii Ousmane Sonko dafa leen cee wan lu leer nañ wan leen ne leen yëf yi de. nii ngeen ko nii ngeen waxee nii ngeen di defee man mën naa bañ a nekk président ok mais Diomaye fay mooy sama numéro de na ñëw nekk président waa Pastef d'accord ne Ousmane Sonko mii ne Diomaye fay Diomaye fay mii moom lañu jël mu nekk sunu candidat Diomaye Sonko Sonko kii parce que jàpp nañu ñoom ñëpp ñoo bokk gis-gis ku ne mën naa doxal yëf yi mhm. maanaam mi ngi mel ni juróomi safoor rek ci oto bu kenn ki sojee kenn ki kii kenn ki ne léegi keneen ki jël oto bi dawal mais ñoom ñëpp xam nañ ni ku ci nekk sa moroom mën na moom ñi nga xam ne nag ñoom ñi ngi ci beneen angle jàppe ni ñoom ñi ñu àndal ñoom ñu nekk ci kanam ñooy nit ñeneen ñi ñu àndal ay suq lañ man bu ma nekkoon tey ci parti wala bu xam moom sax est-ce am na parti bay ah, ah, kii rek. am mouvement am nekkoon ah, bëggoon bokk ci élection yi alaaji yow tamit nag sëñ Abdou moom dafa yor parti politique am yor ay taalibeem ndax sëriñ la d'accord euh, sëñ sëriñ la waaw xam nga sëñ Abdou Bara Dolly fi mu toll nii tey man tey su ma nekkoon supposons ma nekkoon ci kiwam dama ciy génn parce que damay yëg ni rek man suq la ma jàppe hmm. jàppe ma nawle. non nee na ay taalibe la yow. non non ba taalibe ñoom du baalu moo ko wax. Hmm? Ah, moo ko wax. waaye sëriñ la la san yaa ngi nii di ko ñaar encore pour ma dal ci kaw <laughs> te sama gaay la. waaye la nit moom nit moom du dal ci kaw waayam quoi xam nga yow fi mu toll yow. waaw maa ngi koy ñaan dal ah. yaa ngi koy ñaan dal mais sama waay la quoi. li mu gëm moom moom loolu la forcément président bi war ah en tout cas daal mbir mi daal a ngi noonu quoi. Hmm. waaw moom daal. Ah. li ma lay wax mooy. Hmm. Eh, président Macky Sall. Hmm. xam na ni gëj naa gisante Abdou Bara Dolly Abdou Bara Dolly nag moom fekk na moom coowal dialogue mu ne moom moo yore dialogue bi. léegi nag moom di wër di ko wax hmm. te amut kenn ku mën a kenn kuy taxaw di ko weddi parce que li tax kenn du ko weddi hmm. ñi xam hmm. xam nañu du moom bay ñëw bu ñu ko weddee rek crédibiliser ko jox ko gëdd léegi nag ñi ko gëm nag laa yërëm ñi gëm ni moom mii mooy régler mbir yi ñoom laa yërëm d'accord waaw jërëjëf waaw nu mënti xew sa waay la na la comprendre sa waay la moom ñu dem nag si sa beneen waa ji muy Bouba Ndour dëgg yàlla moom nag ñuy wax euh, Ngoné Diop bu taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall moom nag daf ko accusé ne euh, dialogue bële ñu génn moom moo traité woon Khalifa Sall euh, ki nga xamante ne ni moo trahir peuple bu Sénégal ñu dem déglu seen discussion ñu dellu siwaat dañuy trahir le peuple waxaat nga ko léegi seen bopp moo leen tax a jóg askan wi taxu leen jóg ma ñëw toog fii non buuba. diir non diir que ma ñëw toog fii jàkkaarloog yow. diir que buuba sa ma ni Sénégalais yi ñooñu seetaan diir que gëmuma ni dialogue boobu dialogue la c'était pour valider candidature yi ak trahir le peuple c'est deux choses complètement différentes. buuba bi non. fii laa ma wax loo lu ma waxul. dama ne je n'ai jamais dit que Khalifa Sall tu as trahi le man am na loo xam ne du ma ko génne sama gémmiñ. il faut nga nit soo koy tuumaal nga wax ko lu mu wax diir que gëmuma ni dialogue bi vrai dialogue la dañ ko def pour mën a bokk ci élection ak dire que vous avez trahi le peuple ça n'a absolument rien à voir wa les mots ont leur sens dama bëgg mu leer man ragaluma sama non boo paree rek saa yoo saa yoo ma waxee loo waaw dama ne quand tu auras fini nga jox ñu ñu wax pare nga loolu moo la tax a jox dama lay wax rek dama ne pare nga dama ne buuba le débat autour du dialogue a Jakaarlo man maa ñëwoon fii laa toog. j'ai listé les points. yi motivé woon président Khalifa Sall dem dialogue. li nga wax nii ni gëmoo ni c'est un vrai dialogue. non laisse-moi terminer non mais booba dama bëgg nga déglu ma. da nga bëgg ma déglu ma da ngay ma ni tekk. déedéet boo ma accusé non non non accusé gu la mais non mais tu vas laisser parler. mais boo ma accusé dama lay arrêté. boo ma ne yaa wax li te waxuma ko dama naan ma ko lii laa wax. Bouba quand tu dis que c'est pas quand pas un vrai dialogue c'est un deal. maa quand tu dis que dama ne. dama ne Bouba on va dire les mots tels quels fii laa toog fii ma Ndiaye sa toog. maa ngi lay dégg dama ne. Aïcha jërëjëf euh, Maodo ak Abdou Top euh, Alaaji dégg nga euh, werante bi dox ci diggante Ngoné ak Bouba Ndour ci mbirum dialogue ba le passé Bouba na nag dialogue bee du dialogue dialogue bi peut-être mooy nekk dialogue. Ah, wax naa ko fi waxati ko mm-hmm. ne dialogue bi paase du dialogue te it euh, dama ko teg fu wér mm. fi ma ko teg mooy problème bi amoon ci réew mi dañ koo randale fële woo ay nit ne leen yéen ay problème bi te mu wóor nit ñooñu ne leen duñu problème bi mm-hmm. ñoom ñu nangoo dem toog di waxtaan ne problème bi réglé na looloo waral ñu yegg si ci impasse bi ñu yëg ni problème bi ndekete dañ koo puusoon waaye musta réglé kon dialogue boobu du dialogue te mm-hmm. ñoom jaloog boobu bi ñu gisee président Macky Sall di wax war nañu yëg ni du ñoom ñii lay dialogueel. amee ah, ñoom seen i problème réglé wu na ci nag waaw problème yi mu jéem a réglé sax xam nga lu tax c'est pour naqaral ki mu war a dialogueel loolu la ci jublu woon quoi defe ne woon na ni loolu bu ko defee dina am. soulagement dana féex ba noppi ne naa ko sëf problème te xamul ni ki muy sëf problème mooy problème loolu moo tax dialogue boobu yëpp képp koo xam ne amoon nga gis-gis xam nga ni dialogue bii du dialogue te président Macky Sall bi mu toogee di wax waxut ak ñoom boo seetee ni mu doon waxee bay mer ci dialogue ngay wax ba naan laaj leen ma ko ci kii wax ni nga koy waxee nga xam ni du question que ni yéen ñi nga xam ne bi ñëw ngeen ba jàkkaarloog moom yéen lay waxal mais ki muy waxal ñëpp xamoon nañ ko mm-hmm. te kooku mooy ki waraloon moo dialogue bi mm-hmm. ba ba may dégg leneen lu wuuteeg li buuba wax buuba nduur li mu wax moom laa gëm gëm naa ne buuba du taxaw di taxe Khalifa Sall ne ko traître nga ah, mais femme bi waaw femme bi damay ñëw damay ñëw bi loolu mooy li mu gëm naa ni man laa dama ne buuba nduur du wax loolu parce que ëppale na boppam loolu taxaw joxoñ xalifa Sall ak buuba fi mu toll ak tamit xalifa fi mu ne mu koy wax ne ko xalifa euh, kii la mhm. ne ko te loolu du ko wax que nag buuba ne ko seen dialogue bi du dialogue loolu moom buuba mën na ko wax. waaw nee na loolu la wax waaye mais xam nga problème buuba ak euh, les autres mooy politiciens yi dañuy am problème parce que li tax ñuy am problème. ñoom xoolee wuñu ko chroniqueur ñoom dañ koy xoolee euh, membre Pastef bu toog ci plateau bi maanaam ñoom buñ ñëwee adversaire lañ ko jàppee jàppee wuñ ko koo xam ne day toog di wax xalaatam parce que nag réew mi dafa toll foo xam ne bu fekkee ne yaa ngi wax dëgg dafa mel ni dëgg Pastef a ko moom nit ñi bu fekkee ne li ngay gis yaa ngi koy wax ñu ne la Pastef nga féete léegi nag li ngay gis da nga koy mën a gëmm ñu mën a wax ne aawaaw ah, kii moom nekkul Pastef ku neutre la mm-hmm. te fekk ne biir bi du neutre mm-hmm. bu fekkee ne dañoo nekk fii jàkkaarlook taabal ji mu nekk taabal ju weex mm-hmm. macha allah ay micro ne ci ma ne taabal bi de weex na ay micro ngi ci nga ne ma ah, yow solution nga faral solution nga ne mais damaa wax li ne rek bu nduur li muy wax day nekk loo xam ne lu ne ci penc mi la mais les autres dañu ko gisee ne ko yow mii kat ki nga àndal mooy Ousmane Sonko léegi loolu la ñuy def pour freiner sa allure. Mm-hmm. pour nga bañ a tee wax pour nga bañ a tee wax say xalaat maanaam dañ lay def noonu loolu tamit euh, genre euh, kii la ko maanaam euh, genre. terroriste la rek ni nga xam pour say idée mm-hmm. ñu fexe ba dootoo ko développer. Mm-hmm. parce que di nga gis sax nit di expliquer ba noppi naan léegi sax ñu ne Ousmane Sonko laa àndal soxla wut nga di ko wax parce xam nga lu tax. le fait que ngay fàttali loolu rek mooy am na sax sa pensée loo xamante ni bi bloqué nañ la ba ñeme woo koo wax mm-hmm. loolu lan lañ koy tuddee mm-hmm. maanaam dañ lay bëgg a ba li nga war a wax yow doo ko wax parce que boo ko ñu ne Ousmane Sonko léegi nag ci kaw ngay wane ni euh, bugguma kenn xam ne Ousmane Sonko laa àndal war naa wax donc am na yoo xam ne naa ko éviter naa dëgg gi naa ko xaw a bu ma wax bu ma jaar ci digg bi naa ko wetal mais dëgg gi da ngay jaar ci digg bi bu yaboo ñu ne Ousmane Sonko àndal. bu boobaa ñu ne bon mm-hmm. Sonko mooy borom dëgg bi kon. Mm-hmm. bu dee dëgg gi dëgg goo wax ñu ne la moom nga àndal. Mm-hmm. kon boog nga ñu jàpp ni kon réew mi moom moo fi borom dëgg gi. waaw parce que loolu rek la ñuy wax ah. loolu rek la ñuy wax parce que bu fekkee yow da nga ñëw taxaw nga ne dialogue bi du dialogue. Mm. buuba tey histoire jox na ko raison ndaw si moom dafa war a xam loolu. parce que mm. bu ñu bay wootewaat dialogue cela veut dire bi ñu waxoon baaxut. Mm. bu doon na kon kenn du wootewaat dialogue. mais ñoom dañu jàpp ne waa ji dafa waxoon ne du dialogué warul dialogué. waa ji waxul ne du dialogué ba ñoom du ñu dem. waa waxul ne du dialogué loolu koo ko waxal yaa ngi yàq yoo xam. Hmm. daf ne. kenn du ma woo dialogue jël fetal teg ko ci sama. bopp waaw. daat ne waa ji ni nga xam ne noonu lay jaloge hmm. naa tëj ñi naa tëj ñi boo ñëwee ma bàyyi ñi bàyyi ñi bàyyi ñi loolu duñ ci wuy yi daal ne bu fekkee moom nag loolu la xam te noonu lay fonctionner waaye bu fekkente ni loolu la yaakaar mooy xamut yëf yi il rien compris mm-hmm. parce que mbir mi question de dignité la ak honneur du ko wuy jee du dëkk mm-hmm. tey ji gisuñu jekk-jekk gis prisonniers yi di génn mm-hmm. kon waa kañ dégg na message am parce que Sonko joxoon na ko li mu wax bëggoon ba noppi. Mhm. léegi dégg na message am mi ngi kii daan ne kii balaa may waxtaan ak moom boo nee du ma naan warga wi. yaa ngi dégg. Mhm. fekk suukaruñ ko. Mhm. doo ko baxal mu ñor nii rek nga bëgg ma koo jox man naan boo ma ci woowee du ma góox ma ne ah ma ne ah doo naan jox ñeneen ñi xelli leen ñu naan. <laughs> ma dem ba bëgg a naan gis ni affaire bi weex na ma bëgg a woote waatum naan daal di jël suukar tàbbal ca yëngal sànni ca naanaa ne la doo guux bu boobaa kañ boo ma woowee kañ ma ne la waaw léegi warga bi dama ne woon buñ ko suukarut du ma ko naan waaye ginnaaw suukar nañ ko def nañ ci naanaa def nañ ci lii <laughs> ah. ba doole ci ay pasteek yooyu <laughs> ah, kon kañ léegi ma war a mën a naan <laughs> ah, loolu la waa ji waxoon donc nañ ko waxal ay waxam uh-huh. waaw boo ñëwee ne bon ne du wuy ji uh-huh. musul wax ne du ñoom opposition bi nag bu ñu sañoon moom Ousmane Sonko du wuyu mukk du wuyu benn dialogue ñoom bu ñu sañoon dañ koy ah, dugal ci benn kii boo xamante ni bii rek dañ naan nanguwut jaloo nanguwut kii ba noppi di ko forcer foofu naan ko wéy lii mooy dignité lii mooy lii lii mooy lii bul nangu te fekk de waa ji fonctionné wut noonu tegoon na ay condition bu yàgg mhm. léegi nag di moment que bon euh, président Macky Sall mi ngi def yenn yi ci yi nga xam ne moom la laajoon je pense que ni bu fekkante ni bi woon nañ ko na dem. waaw parce que li mu waxoon dindi nañu ko. évidemment waaw. ñu bàyyi la nga tàggatoo. <laughs> ah jërëjëf ma jigéen di joxante dig daje incha allah beneen altine ci kàttanu borom. ci kàttanu yàlla jëf xalaat yi am na solo lool macha allah di jaajëfal euh, Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo jaajëfal itam képp koo xam ne rek yaa ngi doon suivre di ñu bàyyi xel di leen jox dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.